dañu nekk ci campagne électorale bu am solo pour tànn njiiti réew mi ku nekk xam na ni bu ñu nee réew mi senegal gépp la du Ndakaaru képp xam ngeen ni bu baax ni sama engagement politique dafa ànd ak wax dëgg jëf dëgg dafa ànd ak loo wax def ko moo tax lii may wax enregistré leen ko bu nu yàlla mayee dam yéen ci seen bopp daa ngeen ci teg seen bët parce que boobu taxawaay laa mos a am ci askan wi mooy taxaw seen wet nekk ci seen yitte fàtte sama bopp te bu nu yàlla joxee réew mi noonu laa bëgg doonee président de la république képp ku nekk ak man fàtte boppam lenn rek ñor la muy askan wi ndaxte coono bi ñiy jiite ñoo ko war gàddu noflaay bi askan wi moo ko war a moom wante danoo nekk ci réew mi nga xam ni tey coono bi dañ ko jox askan wi noflaay bi ñuy jiite nekk ci tolloolu jaaduwul defar Sénégal mooy fexe ba chômage bi ñu endigué ko defar Sénégal mooy fexe ba ku bëgg faju faju ku bëgg jàng jàng ku pare jàng war am xëy am xëy ku wara dog bu mu gàcce mën a dog bu mu gàcce Fuladu daa ngeen xam bu boobaa ni am ngeen président bu vision wam jéggi jam ñaajo am ngeen président bi nga xam ni jëlul lépp concentre que jam ñaajo day doon président bi nga xam ni muy Vélingara muy Kolda muy Sédhiou muy Ziguinchor muy Bignona muy Kédougou partout dans le Sénégal fuy sénégalais di yeewoo daa xam ni li war état ci sa wet état def na ko ba mu foo gestoo daa ma gis ni maa ngi sa wet li ñu gis mooy ñiy jiite ñoo nekk ci noflaay population bi nekk ci coono loolu nag avec man du mos am avec ñi may àndal du mos am j'aime bien di yanu coono ji pour les autres et loolu ku xam sama parcours xam ni ci loolu laa mos taxaw nekk ci coono pour ñeneen ñi askan wi nekk ci jàmm loolu moo war te képp ku ànd ak man bu ñu yàlla maye ndam ci loolu la ñuy nekk yàlla na ko yàlla may di leen gërëm leen sant di leen gërëm